onze billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim yéen mbokk internet yi suivre Lamyn TV nuyu nañ leen bëgg nañ leen jaajëfal nañ leen ah di leen di wax rang muy abonné tout droit ngeen laal cloche bi lépp luñ dugalati ngeen bokk si ñu ko njëkk a seetaan ah comme niñ ko defee bi saison bi arrêté ak léegi wala bi saison bi posé ak léegi si weeru koor gi di leen di jox li nga xamante ne moom mooy résultat wu mbër yi maanaam seeni bilan wu mi saison parce dafa baax ñuy préciser loolu bilan mi saison maanaam ci digg saison bi saison bi tijji ak léegi fi ñu toll nii ci koor gi mbër bu si ne ñaata final la am fan la jëlee final yi kan la daanoon ñaata final la ñàkk fan la woon ak kan moo ko daan final. vidéo bi tey ñu koy def ci ki nga xamante ne moom mooy sini bu Bargny Siny bu Bargny moom tamit nekk phénomène nekk révélation ni ñu ko mën a waxee ndax heure bi daaw wala daaw jéeg turam demewutoon noonu ci làmb mais dafa ñëw ren. imposé wu ci lamb ji biir dakar ak ci àll bi tamit voilà sini bu bar barñi moom def na lu tolloog 12 final ci 12 final yooyu sini bu bar barñi jël na 8 drapeau ñàkk final 4 yoon ci biir vidéo bi dinañ leen wax sini fan la jëlee final yi fan la ñàkkee final yi am na dat yi moom am na nga xam ne am nañ dat yi mais am na yoo xam ne dat yi def ñoo échappé sini bu bar barñi le 3 octobre 2021 bëri na Iba Mar daal di ko jël jël ko ci kaw Ablaye Ndong bu fiisel si bu bari ñi le 27 décembre bëri na fi nga xamante ne moom mooy Faoy Faoy si bu bari ñu jël ko ci kaw benn gaynde bu ñuy wax Baabu le 28 février si ni bu bari bëri na Simal Simal si ni bu bari mu ngi koy jël jël ko ci kaw Brosse Brosse El la révélation moom tamit. le vingt huit mars hmm? ki nga xamante ne moom mooy Sini bu bari ñi demaat fi nga xamante ne moom mooy Simal daal di ko jëlaat jël ko ci kaw Messi bu Januar Sini bu bari ñi jël na fi nga xamante ne moom mooy ñàngal ñàngal mu fay daanoon ki nga xamante ne moom mooy abooy Sini bu bari ñi jël na lamb fi nga xamante ne moom mooy yéen fekk fa Ousmane Mbaar Ndiaye daan ko à domicile Sini bu bari ñi jël na mbapat lamb foofu noonu Diofior la woon daanoon fa ki nga xamante ne moom mooy mojaan bu Diofior fekk ko Diofior à domicile daan ko Siny bu Bargny jël na benn lamb wala benn mbapat Palmarin Palmarin daa dem fekk Mbaye bu Palmarin à domicile daan ko donc Siny bu Bargny daan na Ousmane Bar Ndiaye à domicile daan mojaan à domicile daan Mbaye Diop bu Palmarin a domicile loolu mooy huit final yi nga xamante ne Siny jël na ko diggante Iba Mar fa ooy simal ñaari yoon ñàngal jël yéen jël joof ak fi nga xamante ne moom mooy palmarin sini bu bari ñi ñàkk na ñeenti yoon final maanaam quatre fois benn bi le 14 novembre la woon Iba Mar foofu Ngor ñaax moom moo ko fa daanoon sini bu bari ñi le 30 janvier ñàkk na final fi nga xamante ne moom moo di ro ro ci commune Djilass bi la ne waaye soriwul noonu ak Diofior ak Simal roxy new barni guuy gi bu jilas mom moko fa danon final le 30 janvier jof yor sini bu barni ñak na fa final mam fa de bu jof yor mom moko fa danon waye sini bu barni aussi ñak na final fi nga xamantene mom moy samba dia keur kuram voilà fofu buñu dégante ak mom ñun aussi xamuñ kan moko daan mais mom aussi néna jappul tour waji donc sini bu barni lolu moy 4 final yi mu ñak digënté ibamar diop oro yor ak Samba Dia kër kuram muy bilan bu satisfaisant bilan bu bax mom si ñu bari ni champion la meuna beure lol wala ñukoy ñaanal fi mu bëgg egg ci lamb ji ya-, la yobbu ko fa diko wax bonne continuation Diko féliciter aussi ndax bi saison bi tijjee ak léegi nga nek ndaw def ci 12 final jël ci 8 drapeau ak 4 final te mom yëmul Dakar mu ngi bëre Dakar mu ngi dugg si all bi di def ay résultats tamit donc macha allah kon non la fa démé rang muy abonné zulum zalam tout droit aca finalu raw gadu bawi noonu diggante Siny bu Bargny ak Brosse El Bandit fii nii takk na ko fii nii caxabal wala eh fii nii dafa dëgër génn na Zaku ya bu Bargny ak Brosse bu Mor Fafako ko. mu ndoor maa ngi lay siyaar di la gëyoo le grand champion Siny bu Bargny